dali nag jàmmo ñu ànd xëy yër yéenekaay yi nga xam ne moom la ñu xëyandoo yéenekaay gi di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa Didier Raoult mi nga xam ne moom la ñu gën a bàyyi xel ci àdduna bi jamono ji ci lu jëm ci mbirum covid 19 ginnaaw kàddu yi nga xamante ni yëkkati woon na ko fii wax ne chloroquine dafay faj li nga xam ne mooy coronavirus yéenekaayu groupe promo consulting bi moom Didier Raoult daat nay wax kañ la virus bi di jeex ndax nag nee na jamono ji ma ngi jeex bu baax a baax yéenekaay gi di Vox Populi xëy nag fa Moustapha Tall mi nga xam ne nag ñëpp daat nañ koy ràññee ci lu jëm ci mbirum ceeb nee na nag li nga xam ne moo xew jamono ji ci nag ceeb beek marché yi ni ñu ko doxalee maanaam scandale ak giraawaal yi mënu koo paase ndax ki nga xam ne moom lañ jox maanaam marché ceeb bi kooku kenn musu ko xam ci lu jëm ci mbirum importation ceeb yéen kaay gi ba tey mu ñu xamal nañu ñu en tout cas li am ba des daal mooy Mansour Faye jamono ji nag ma ngi jeune Macky Sall bu baax a baax war Diop daal di wax yéenekaay gi de La Tribune ñu fekk fa Alioune Tine la xam xamle nee na ñi nga xamante ni nag maanaam ñooy prox ndoll ci Covid 19 bi ak ci marché yi ngir nag daal di si amee ay koppar ñooñu nag ñoo raw coronavirus laas yéenekaay mu ñu xamal nañu li am ba des daal coow leeg milliards yi nga xamante ni moom lañ siy tudd cas suspect bu njëkk bi maanaam Mansour fay la yéenekaay gi de La Témoin ñi nga xam ne nag ñooy waa société civile bi ñoom nag ñoo ngi artu Macky Sall ngir nag lépp leera ñoom sax li ñuy sàkku mooy ab comité de pilotage jëm ci koppar yi nga xam ne daal nañ koy teg ngir nag jàmmarloo ak Covid 19 yéen kaay gii di réew mi quotidien mu ñu xamal lan ñu en tout cas li am ba des daal Sénégal jamono ji kaay yi ma ngi gën di bëri ndax nag lu toll si ñetti téeméer ak fukk ak ñeent ci ay nit amee nañu jàngoroy coronavirus ji lu toll ci téeméer ak ñaar fukk ak benn jamono ji ñoo ngi si lal yu hôpitaux yi yéen kaay gi nag nee na Dakar ak Louga maanaam ñoo jël nag raw gàddu gi maanaam ñoo ko fi daal di ëppale tiitaange gi fi la ëppee yéen kaay gii de la turbine mu ñu xamal la ñu nag lu toll si ñetti junni ci ay nit jamono jamono ji maanaam dañu leen a confiné leen daal di ber yéen a kaay moom nag nee na diiwaanu Goudiry lu toll si junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom fukk ak benn ci ay nit yoo xamante ni maanaam ay cas suspect lañu journal bii di Libération mu ñu xamal naan ñu lu toll ci fukk ak ñaar ci ay nit amee nañ coronavirus ci diiwaanu Parcelles laas yéen a kaay nee na jàngoroy coronavirus ak law gi nga xam ne ma ngi koy law ci Ndakaaru tax na Abdoulaye Diouf Sarr ak médecin chef de district yi maanaam ñu amal ab réunion d'urgence niki suba ci ajjuma ji njiitu réew mi di président Macky Sall ci journal bi du l'Observateur moom nag daat nay wax ne ñi nga xamante ni daal ñoo nekk ci biir kër yi te am jafe-jafe ak ñi nga xam ne ñoo leen ko luyee maanaam bu ñu leen génnee te procédure yi nga xamante ni commencé woon nañ ko si jëm ci mbirum yoon nañu ko daal di dakal daat nay wax tamit ne banque yi dagg gi nga xam ne doon nañ ko dagg seeni i client loolee nañu ko daal di bàyyi yéen a kaay gi di las mu ñu xamal ñu communautaire yu bari yi daat tiital njiitu réew mi ak ki nga xam ne mooy professeur Moussa Seydi Moussa Seydi nag la mu xamle <laughs> nee na daal li nga xamante ni moo am ñaari mbir la maanaam ñëpp di takk masque wala nag ñu dem ci ab confinement yéen a kaay gi di réew mi quotidien mu xëy di ñu xamal la nag kaddu yi nga xamante ni yëkkati woon nañ ko fii wax ne nag vaccin yi ngir na xeex Covid 19 Afrique la ñu koy daal di testé loole nag Emmanuel Macron njiitu réewum France maanaam moom daa na jéggalu ñi nga xam ne ñooy africain yi yéen a kaay gi du l'observateur mu ñu xamal la ñu nag lu doy waar a doy moo xew ca diwaanu Tamba ndax dafa am ñu nekkoon Tamba bëggoon a ñëw Dakar dugg ci benn camion ginnaaw frigorique maanaam mu jee xëj bay bëgg a dee ñooñu nag toll nañ si juróom-ñeent ci ay nit yéen kaay groupe Prama Consulting bi mu ñu xamal laa ñu neexul ba neexul nag waaye kuréel gii di OMS organisation mondiale de la santé jamono ji dafa nag amee coronavirus maanaam mën nañoo wax sax ne dañu ko testé mu daal di positif ndax pëccëxoo gaa ma nga mel ni tulleeg male ci xëlim ak Assane Samb daat nay wax sax ne ñi nga xam ne nag ñooy américain Donald Trump moom lu toll ci quatre cent millions de dollars yi nga xam ne doon na ko ci dugal daf ko ñenn ñi nag bokkuñu gisin ak mooma en tout cas li am ba des stade yéene kaay moom dafa daal di ci nag Omar Gueye Sène mi nga xamante ni maanaam moo njëkk a nekk capitaine bu Sénégal jaar na Paris Saint-Germain journal bi nag di stade nee na Kalidou Fadiga mi nga xamante ni dañu doon wax ne pied magique la maanaam tànk bi dafa neex journal bi nee na nag Omar Gueye Sène moo ko mën yéen kaay gii du sunu làmb mu ñu xamalaan ñu ginnaaw bi ñu defee ab xayma diggante Balla Gaye 2 ak Modou Lo ak Eumeu Sène moo gën a xarañ daat nañuy dem nag seeti ñi nga xamante ni làmb ñi nga xam ne loolu rek la ñu xam di ay technicien ñoom ñëpp daal yëkkate nañ seen i kàddu waaye nag la ñu wax mooy Balla Gaye 2 moo leen mën